Cheikh Tidiane dafa ni ma xam nga yëre Ousseynou lu tax nu denc ko fi ma ni ko déedéet mu ni ma bu yowmal xiyaam taxawee ba responsable yi ka jamoon taxaw mu ni ma gis nga Fatima mii doomu yonent bi li muy baax baax mooy dem fële jëli yére bi yóbbu ko ba ci kanamu yàlla ni ko ñii ñoo rayoon sama doom waaw su boobaa mu ni seen condamnation moom dootul doon sax lu ñuy werante waaw Cheikh Tidiane ko mu ni te xoola Fatima nu mu baaxee waaye xam nga lu muy xaar mu ni yowmal xiyaam yére bii lay jël yóbbu ko ba ci kanamu yàlla ni ko ñii ñoo rayoon imaam Hussein sama doom waaw waaw léegi nag nanu laaj léegi ban bàkkaar la imaam Hussein defoon ba nu jamate ko ni waaw ma ne xanaa bàkkaaru demoon bëgg leen jiite dimbali leen waaw ñu piégé la waaw demoon bëgg leen dimbali ñu piégé la waaw te imaam Hussein it ku baax la ndeysaan waaw moom ku baax la tabaarakallaahu bi ko fi xalifa Massamba defalee waxtaan bu yaatu bu rëy sax waaw ba ñu bari xam ko ndax ñoom dañu apprécier kuy nettali seen histoire waaw boobu la ñëwoon ni ma bu leen ko waxati Massamba Mouhamad la tudd waaw tuddul Massamba <laughs> dama ko doon tooñ ne naan xalifa Mouhamadou Kulbali ndeysaan waaw mu ni Mouhamad la tudd waaw ma gëstu ba yàgg ma ne ah waaw ma Massamba tur aada la moo tax ndeysaan ma ni moo tax xam naa mu wax Mouhamad waaw ñoom ñoom du ñu delloo dara ci aada waaw gis nga ñoom ci lépp ci xaqiqa lañ koy delloo waaw waaw ñoom du ñu delloo dara ci aada ñoom lépp ci xaqiqa lañ koy delloo waaw parce que yëg nañ ni xaqiqa rek mooy dëgg te ñoom loolu la ñu yëg waaw moom imaam Hussein ndeysaan waaw waaye gis nga moom it nañ ko def waaw gis nga moom it nañ ko def ca Karbala waaw te dafa demoon kat pour jiite ji leen de waaw dafa demoon pour jiite ji leen yonent bi sax feeñu na ko ni ko boo demee dañ lay exécuter waaye dafa continuer waaw ndax ñoom li nekkoon ci ñoom. léegi dafa nekkatul ci lu ñu bare mooy ñoom dañu amoon jomu diine am jomu diine lu am solo waaw waaw mooy gis nga la nga nekk bay boo na la nit ñi bàyyi bay boo na la nit ñi xas bay boo na la nit ñi wax lu dul noonu nay dëgg rek waaw buy dëgg sax ci waaw waaw li bon kay mooy nekk ci caaxaan nekkoo ci dëgg kooku moom ñaari nit sax buñ la xëccee nga daan waaw waaye boo nekkee ci dëgg nga xam ni lii dëgg la ci yàqin loolu la nit ña wax enduré ko te continuer sa parce que nit ña lay wax nag bu yàggee ñooy dem ba yàgg ñu ni ci dëgg la ne waaw waaw waaw ñooy dem finalement ba yàgg reconnaître sa nekk ci dëgg waaw te ñoom loolu la leen yonent bi jàngaloo waaw yonent bi daf leen fonkoon waaw daf leen fonkoon ndeysaan waaw daf leen fonkoon moom moom ak Hassan waaw imaamu Ousseyni ak imaamu Hassan waaw yonent bi fonk leen ndax ay sëtam la ñu ñu jaral ko lu ne seen baay Alioune nit fonk leen ndeysaan waaw Alioune fonk leen lool tabaarakallaahu waaw waaw fu mu fu mu tourné rek xelam nekk ci ñoom waaw yéeféer yi dañ daan dem ba di ko tooñe waaw yéeféer yi dañ daan dem ba bu ñu rombee ni Alioune Alioune du leen xool waaw Alioune ku amoon caractère la du leen xool yéeféer yi toog ba yàgg ñu ni Abu Hassan Alioune reetaan ñu ni déggal boo nee Abu Hassan rek mu reetaan doomam ji rek lu bëgg dañ ko ko daan tooñe waaw dañ ko ko daan tooñe dañuy dem ba yàgg wax ko Alioune du leen wuyu ñu jékki saa ñu ne Abu Hassan mu xool leen ñu ni xoola doom yi rek la bëgg waaw waaw ñu ni doom yi rek la bëgg ndax Alioune ku amoon caractère la waaw ndax caractère diine la amoon waaw caractère diine la amoon moom li mu gëmoon mooy message bi nga xam ni moom la yonent bi jëlee xay bu ñëw di leen ko jàngal xamoon na ni warul nekk mukk message bu ñu bàyyiwul xel waaw xamoon na ni message bi warul nekk mukk message bu ñu bàyyiwul woon xel waaw moo tax nag mu ni leen message boobu mu ni leen message boobu faw ñu jàlle ko ci yéen waaw mu ni faw ñu jàlle ko ci yéen waaw ndax jamono noonu lay doxee